ñu ngi tàmbali tey suñu liggéeyu xool li xew ci terrain bi ci Thiès bi ñu fa jógee jàll nañ Bambey ñëw Diourbel dem Mbacké ba yegg si fii Touba li nga xamante ni moo doon sababu jóg bi tey mooy ñëw saytu si li ñu santoon autorité administrative yi nekk ci gox yooyu muy teel a jublu ci liggéey bi ba matériel électoral bi ñoom ak DGE parce que DGE moom moo koy organiser mais daf leen koy jox ñu conditionné ko war ko yóbbu ci fi nga xamante ni fa ñuy voté ñëwoon tey kon pour xool ndax matériel bi lépp yegsi na matuwaay yi nga xamante ni moo ci war ngir bu dimanche jotee incha allah électeurs yi war a tànn ñi leen war a taxawal ci conseil départementaux yi ci communes yi ak ci villes mën ko def ni mu waree te bi ñu ñëwee xool li nga xamante ni moom lañ ñu bindaloon ci ay kayit ni ñu jot na am loolu la ñu gis ci terrain bi kon du ñu def lu dul rafetlu liggéey bi nga xamante ni tàmbali na te war a yegg dimanche bu ci yàlla àndee autorité administrative yi amal ko nit ku nekk am nga droit nga voter sa droit la Euh, te sax quelque part et c'est la vérité c'est un devoir citoyen que de voter nga tànn ni kii moom ma doy kii laa yaakaar ni mm, li muy wax ni su ci jotee dina ko def mu dellu si ci nun convaincre na ma gëm naa ko donc moom lay sànnil sama carte ko ku ne am na ci droit waaye droit boobu mayula ngay yàqal kenn mayula tamit ngay yàq li nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk ba tax na li ñuy séntu te Sénégal dëkk la bu yàgg organiser ay élections dëkk la boo xamante ni tradition démocratique daf fi sax dëkk la boo xamante ni nit ñi mën nañu wuute xalaat mën nañu sax bañ a ànd ci gis-gis ci yenn yi rawatina su élection ñëwee waaye bisu tànn la bu tànn bi jàllee ki nga xamante ni moom moo gañe ki nga xamante ni moom la doon jonganteel li ñuy séntu ci moom mooy mu félicité ko ànd ak moom ci liggéey ànd ak moom ci liggéey nag euh, tekkiwul ni da ngay ñëw ànd ak nit ngeen bokk fi ngeen nekk ci parti wala mais même ki lay critiquer yow la àndal ki nga xamante ni mi ngi taxaw di xool ngay liggéey mu gis ni lii doxul wala lii mën nga koo gën a rafetal mu ñëw critiquer la même man kooku ci sama gis-gis képp kuy def loolu jëmale ko ci yow yow la àndal ndax su fekkente ni dafa jublu euh, mu gën a baax donc euh, loolu li ma ci jubloonu wax mooy élection yi ci wàllu vote bi nangu ñëpp xam nañ ni lu jaadu la maintenant et ci loolu lay tontoo ci wàllu sécurisation scrutin bi nga xamante ni moom ngay wax dama wax ni rôle état la pour sécuriser le scrutin bi nga xamante ni ñi ngi jub élection yi dama jox ndigal gouverneur yi ni leen kenn ku ne ci ñoom na nga def réunion yi nga war a def yëpp xool li nga war a taxaw yëpp ngir sénégalais yi mën a génn voté ci jàmm dellu seen kër ci jàmm réew mi nekk ci jàmm ñu continuer di dund ni ñu nekkee ay doomu ndey ak ay doomu baay ni ko xamee ci suñu réew parce que loolu lañu ñu mës a dundee ci wàllu sécurisation bi fii si Touba damay wax ni muy Touba ak muy beneen dëkk ci biir Sénégal lépp luy wàllu sécurisation niñ fay taxawee benn lay doon li ko waral mooy amul kenn ku mën a empêcher moroomam mu def droit de vote mais rôle état bi mu assurer la sécurité des personnes et des bien et kooku noonu euh, l'expression plurielle de la démocratie maanaam euh, bañ a juboo wala euh, bañ a am même xalaat kooku dañ koy nangu. nit ku nekk am nga droit nga ni ànduma ak yow nit ku nekk am nga droit nga ni kii lay votel ku la neex nga votel ko waaye nag euh, kii lay votel te bu fekkente ni voté woo ko ma xeex ak yow kooku ak foo mënti bokk yoon daf ko dàq diine daf ko dàq ngor daf ko dàq rôle état bi la nag pour mu assurer. la sécurité des personnes et des biens et kooku mën naa leen wax nii du loo xamante ni c'est négociable. Euh, ci wàllu matériel euh, wax naa ko léegi ma leeral ko bi nga xamante ni liggéey bi tàmbale na option bi mooy yeggale matériel bi fi nga xamante ni moo gën a sori bala ñu koy indi Dakar te buñ ko yóbboo foofu ba noppi. di nag gën a jege si lu ñuy gën a jege si Dakar rek di fa bàyyi matériel lu ñuy gën a jege si Dakar di fa bay matériel ba Dakar mujje loolu nag bis bu nekk suñu xëyee dinañ ci def benn point xool fan lañ ci toll xool ndax matériel bi ñu ni yegg na euh, dans les régions de Ziguinchor kedugu ak Sédhiou ak Kolda yegg na yi war a dem Tamba ndax yegg na yi war a dem Saint-Louis Matam yegg na noonu lañ koy defee ba yegg si Thiès bu ñu yegsee Thiès ñu xool ni yegsi na Dakar même matériel bi tamit yóbbu nañ ko ba noppi matériel lourd bi lañu ñu njëkk a yóbbu teg ci bulletin yi ak document électoraux yi nga xamante ni fii ñuy waxee nii tey euh, buñ ñu woon suba la ñuy def élection yi mën nañ ko def mais liñ ci jublu mooy euh, lu ne da nga ciy jàng élection chaque fois euh, benn œuvre humaine parfaitul amul dara lu nit di def ñu ni cent pour cent amul lu ci nit mën a am comme opinion divergente munu ci am beneen xalaat bu bokkul ak yow bi nga amee même li nga xamante ni dañ ni manqué na tel bulletin ak tel kii nañ ko gaaw yóbbu nga xamante ni aljuma au plus tard lépp li ñu war a am sur le terrain am nañ ko comme matériel ba bu samedi dañuy éclater après dimanche ñu continuer liggéey bi le matin de très bonne pour que bu nit ñi ñëwee a huit mën a fekk ci seen ay bureau de vote président bi toog ñi mu seqal liggéey bi toog représentant partie yi toog SEDA toog nit yi mën a def seen vote ni ñu ko bëggee ci jàmm ak ci salaam képp koo xamante ni askan bi tànn na la ki nga xamante ni tànnuñu ko félicité ko euh, Sénégal noonu la mësa bindoo te ci wàllu euh, nag euh, audit fichier électoral bi ak processus bi ndax posé nañ ma question yooyu du ay élection yu ñu jàpp pour la première fois élection yi deux mille dix neuf lañ ko waroon amal deux mille dix neuf juillet ñu dàq ko mu dem décembre bi mu ñëwee ci weeru décembre bi acteurs yi nga xamante ni ñoo seq langue politique bi daldi di ni ñenn ci ñoom en tout cas ni suñu suñu sañoon te loolu sax ñoom dañ ko demandé muy préalable mooy loo xamante ni bala ngay def dara danga koy teggi ba noppi. nañu càmbar fichier électoral bi nañu càmbar népp li ñuy organiser élection ci Sénégal 2016 ak léegi bu amee rëq-rëq ñu joyanti ko bu fekkente ni amul rëq-rëq ñu xam ni lépp jaar na yoon mën a fixer date pour ay élection loolu jël liggéey bu bëri ci commission politique bu dialogue national bi lii niñ ko war a defee ñu waxtaan ci ba déggoo ci ñu ni ñoom ñi ko seq ñëpp di waa langue politique bi dañu bëgg jël ay experts internationaux experts yooyu ñëw def liggéey indi ko teg ko ci table ji pour nit ñi wax ndax doy na leen wala doyu leen alors bi experts yi ñëwee audite fichier bi évaluer processus électoral bi conclusion yi ñu joxe mooy fichier bi fichier bu mucc ayib la processus électoral bu Sénégal ñu ni processus la boo xamante ni processus bu jaar yoon la bu wóor la loolu ñi seqoon nangu politique gi damay fàttali ni dañu waxoon ni su loolu amul duñu dem élection bi loolu amee ba ñu def ko ba noppi ci lañu door a mën a jàpp nag datu 23 janvier 2022 loolu moo indi datu 23 janvier 2022 bii donc wallu élection yu leer ak fichier électoral bu jaar yoon man jàpp na ndaxte loolu la ñëpp d'accordoon li lu nekk suñu ginnaaw la kon dañuy rafetlu euh, suñu démocratie fi mu toll ba tax na même ñi àndul bokk même lang bu ñu demee ba d'accorduñ ci dara mën a woo koo xamante ni dina leen ko xoolal xam-xamam màcc na jëm ci loolu te su fekkente ni indi na leer lu yi ci war su boobaa ñëpp bokk ci ànd